noo ngi amati kontante ak mbégte ci indil leen sunu ñetteelu jotaay ci ay jotaay yu nu namm amal ci biir weeru koor gi di ci nafarante ak len lenn ci àttey koor di chahru ramadan al mubarak kon bismillah juróom benn yi sabab waru woor woor benn ci juróom benn yi rek mooy sabab ak waram maanaam fu woor ware benn ci yi la sababoo bu njëkk bi mooy teeruk weer wi tudd ramadan weer woowu tudd ramadaan bu teroo woor war ndax saa yàlla subhaanahu wa moo farataal ci képp ku ko teewee te man ko rek mu woor ko ñaareel ba mooy rey bakkanub ab jullit ci anamuk njuumte ku rey nit ci anamu ñàkk gannaaw di ja mu war a jox mbokki ka mu rey dañuy waral ci moom mu kafaara kafaara gi nag benn ci yaar yi lay doon bu njëkk bi mooy goreel ab jullit bu nekk ci moomeel maanaam ab jàmm ñaareel ba mooy wóor ñaari weer yu toftaloo kafaar ak rey tartib la maanaam dangay tëli option bu njëkk bi doora sañe bu ñaareel bi kon bu amul lumu mu goreele ab jaam mbaa am na ko sax waaye gisul jaam bu mu goreel kon wóor day dal di war ci moom ñetteel ba mooy zuhër zihar mooy boroom kër bu niroole soxnaam ak jigéen ju ko xaraam ci anamuk dappetu niki yaayam wala doomam ju jigéen mbaa ab jigéenam maanaam ab séeram ci niral mu wax soxnaam su ma la nammatee tiim tiim sama ndey loolu di wax ju ñaaw ju salte ni ko borom bi waxee ca suuratul mujaadala boroom kër boobu nag balaa mën a séqati ak soxnaam soosu dara day kafaara loolu mu wax benn ci ñett yi bu njëkk ba mooy goreel ab julit bu nekk ci moomeel maanaam ab jaam ñaareel ba mooy woor ñaari weer yu toftaloo ñetteel ba mooy leel juróom benn fukki miskin kafaar ak zihar itam tartib la maanaam option bu njëkk bi nga war a jël boo ko tëlee door a jël bu ñaareel bi boo ko mënul door a sañ a jël bu ñetteel bi kon loolu mooy ñetti xaaj yi ci juróom benn yi sabab waru gu wor wassalaamu ala man ittabaal